bismil ilaahi del si na ngir wayate cheikh sëriñ bi tey muridi bégati jataayu mag yi di jataay bu ñu amal ngir nag di ko waajalee lii nga xamante ni bisu màggalu seexi sëriñ tuuba yi loolu nag di li am solo dañu jukki kenn ci mag ñi nga xamante ni ñu àndoon ak sëriñ tuuba xaadim ci bu bi nga la doon amal te mag ñi le àndoon ko ak moom waral sëriñ Mamour Touré daal nak amal bis bi nga xamante ni mooy bisub màggal seexi sëriñ tuuba yi waaye nag di def ayu bis bu mu di jël benn mag ci mag yoyu daal di koy waxtane ngir xamle kan moy mag momu ak ay jaar-jaaram tay jilee ñu fasiyene waxtane kenn ci ñooñu di Cheikh Aliou Mati Touré borom sew Touré waye nak direct ci Cheikh Aliou Touré borom barikalla mom mi le lañu fasiyene xamle ak mbokki talibé defal na bokkam ya defar naw jaambur ba ñepp melni ne jant raw ca njaambur. mun sant yàlla julli ci yonent bi sëñ Mor ñi ngi yeesalaat suñu siyaar ak sunu jébluwaat ci sëriñ bi di ko teg ci loxob sëriñ Abdourahmane Touré xalifa sëriñ ali Mati Touré mu tegal na ko ci loxob sëriñ Mountakha mbake wasilaam di nuy bokki julit yépp di leen sant tey ñaan sunu borom defal lu jàmm ak yiw ki nga xam ni moo la tax a jóg tey nag muy Serigne Aliou Mati Touré moom Cheikh Touré moom day jëmm joo xam ni yàlla daa dogal mu ngi cosaanoo Touré ngeen mook Cheikh Aliou Touré barikalla magam di sëriñam yàlla def euh, way juróom wu góor di bàyyi ma maam Malick Touré ak wayjuru sunu maam Cheikh Ali Touré maam Masamba Warxa seen ñaari wayjur ñoo bokk benn way wayjur waaye nag Cheikh Ali Touré barikàlla magoon ko lu bari ndax Cheikh Ali Touré barikàlla yàlla dogal na mu ngi bokk ci mille huit cent cinquante quatre yi euh, Serigne Aliou Mati bokk ci mil huit cent soixante yi yàlla dogalit euh, Serigne Aliou Mati moomu yaayam mu ngi tudd Soxna Mati Soxna Mati Diop moomu di way juróom euh, ki nga xam ni mooy Mouhamadou Ndumbe Xarjata bokk ak Maxtaan Ndumbe Xarjata nga xay ñaar ñooñ ñoo sos lu bari ci kokki maxtaan ndumbe moo sos kokki Mouhamadou ndumbe xarjata sos kër ma ndumbe ak warak Mouhamadou ndumbe moomu nag ñetteel bi doomam bu góor moo jur soxna Mati Diop mi yaay Serigne Aliou Mati Touré bari na ñoom bokkal nag ci ñi sant Mbàkke ndax ñi ci sant ñi ci seeni waajur sant Jóob ñu ci bari moom ñoom ñoo bokk néegum ndey sëñ Daam Ture sa maam moo bokk ak moom ba tey néegum ndey moom nag yàlla daa dogal bi nga xamee ni gane na àdduna ca Ture ngeen bi mu tolloo ci wara dal jàng wala mu dal jàng ba noppi baayam dafa toxoo woon ñëw Pire yàlla dogal ñëw Pire googee lu yaatu la ndax maam Malick dafa ñëw ak njabootam Cheikh Ali Touré mu magit moom it ñëw piir ci ak njëlbéenam ñoom dañ fa doon dabu suuf ak alxuraan ndax ñoom dañuy niti alxuraan te boobu alxuraan day bi piir la ne Pire moo jëkka euh, mandi alxuraan jëkku koo jàngale ci biir senegal Euh, Cheikh Aliou Touré sax ñu bari ñu ngi wax ni bi muy dem ci sëriñ tubaa Mbacke Kajoor Touré ngeen la jóge waaye demewut noonu moom Pire la jóge piir la jóge fekk sëriñ tubaa Mbacke Kajoor bi mu demee ci sëriñ bi Mbacke Kajoor te sunu borom def mm, foofee mu jaar ak Serigne bi mu jaar fa ak moom ci benn bis. Jibril alayhi salaam daal di wàcc Serigne bi ne ko sunu borom ne loo xalam mu def. te la muy xalam mu njëkk caa xalamaale pajuk aju Cheikh Aliou Touré diir bu gàtt la am Jibril alayhi salaam dellusiwaat ni ko suñ borom nee na Cheikh Aliou Touré kat doonatul ku ñuy liggéeyaloo aajoom faju na suñ borom gërëm na ko Rasulullah gërëm na ko am na sa ngërëm sëñ bi da ko ne na dellu pir kam jóge woon kere ba mu dellusiwaatee pir pir gépp a dagg jébbalu ci moom muy Cheikh Aliou Touré booba Serigne Aliou Mati mii mi ngi toll ci fukki at ak ñeent fukki at ak ñett toll ci di mokkal alxuraan ci biir njëbbal moome daa daal di daw moom jébbalu ci booba nag fekk na ñoom askan woowu ñépp maam as moo nekkoon seen sëriñ moo leen joxoon wirdu xaadir maam Malick may baayam bi mu gisee ni doomam ju mag dal nay dem jébbulu ji loola def daa ub boppam ba la ko delloowaat kajoor loola bokk na ci mu daldi delluwaat moom kajoor waaye reste Cheikh Ali mu mag daldi di reste ak barke bu mag yàlla def bi mu demee ba toog ba seex ba ceex gi metti ba bokk ñépp ñëw mu daldi dina nag Touré ngeen seeti ay bokkam ginnaaw ñooy bokk bokkam te suñ borom baaxe na ko gan boo xay ñoom amuñu ko mu daldi di ànd ak gawar gu metti dem seeti ay bokkam nag ca Turingën ba mu demee ña fa desoon ci ñu jotul woon ñëw ci moom daal ñuy ñëw ci moom foofa it mu ni maam Malick yaay yow mi ma dese ci bàyyikat yow laa doon seet si ndax lii ma jànkonteeg sëriñ bi yéen ñi ma meññi du tee ma teg leen fa ma leen war na teg moo tax ma seetsi si la tey jii loola it kajoor gépp di ay bokkam àndoon nañ ca ak moom ca booba jamono yàlla def bi mu ñibbi siwaatee piir Cheikh Aliou Mati sax ca ba muy ñibbi dab na ko ca ca ca yoon mu war ci fas wi mu bëgg ànd ak moom dem waaye da ko ni demal toog ba déggoo ci sa baay ndax booba xamoon na ni yo lu jëkk la baayam andu ca woon moo tax mu ne ko dellul dinaa la jël si ma ñuy waxtaan ak sa baay mu daal delluwaat ci kër toog waaye nag diir bu gàtt Cheikh Ali Touré demul jëli moom mu daal di jógal boppam daldi ñëw bi muy ñëw sax fekk na Cheikh Aliou Touré pir xat ci moom ba sëñ Mandoumbe dogal ko xàbbaan ba yóbbu ko fa mu ne fa def fay daara sëñ Aliou Mati bi muy ñëw xàbbaan la ko fekk mu ngi da mi ngi loolu mi ngi dëppoog bis bi sëriñ bi dem ci tukki bi waaw mille huit cent quatre-vingt-quinze bis bi muy dem ci tukki bi moo dajeeg bis boobu signal yi mati sax bi mu demee ba xàbbaan bis boobu fekkul signal yi ture barika la nekk ci kër ga fekk na boobu moog sëñ Manoumbe ña nga ca gaaru kees ndax sëñ bi dem gi mu doon dem ñoom ñu foofa lañ doon dajeek moom di ànd ak moom di ko gunge bi mu dellusiwaatee nag ci kër gi la fa fekk signal yi mati mu ne ka dangaa ñëw mu ne ko waa damaa ñëw ñëw gi nag daa am lu ma ci boole ndax man dama bëgg a àgg ci sun borom daa am lu ma bëgg a am jàng naa alxuraan nag ba noppi sama baay nag bu njëkk li ma téye woon mooy samam jàng àgguloon waaye léegi noppi na léegi nag bi ma jógee nii mën na maa dem ci sëriñ bi àgg ci moom mënoon na maa dem ci maam na yem ci moom waaye ginnaaw yow laa bokkal sëriñ bi def ci yow lim def ci yow nga am loo xëy ñëpp xaj na ca li ci yow laa koy wute Cheikh Ali Touré ni ko nag baari kàlla kon toogal bi yoon moom sa way jur sunu baay bu ñëwoon jël si doo dem maam Malick fekk na ko ba xabaan di ko jëli waaye Cheikh Ali Touré nangu da koo téye boobu mi ngi toll ci fukki at ak juróom-ñeent yàlla def booba fekk na fa mag ñu sant Touré ñu bari ñu ne ca daara ji di muritu Cheikh ñu ko mag am na koo xam ne ji booba bàyyi la ci ñoom kooka bàyyi la ci ñoom booba yor jëwriñu Cheikh kookee fii ne moom la signal yi mati wutu ci jëwriñ ndax ñaari at la fa def ak moom mu wàcc ab liggéey daa nañ ko wax Mama Touré ab sa léegi Cheikh Ali Touré ne ko gàdd de magoo ci waaye daanaka mën naa ne yaa ci man kon nag jëwriñ gi yow laa koy def booba la ko daal nome mu daal di doon jëwriñu Cheikh Aliou Touré Bari la loolu 1897 du ko sori waaw ndax ñaari at rek la fa am ca 95 la fa am yàlla def booba yooyu jamono sëñ bi bi muy dem battale na mag ñi ak maam Thierno lu ñu ñoral ci ab liggéey maam Thierno lañ koy yóbbu. Cheikh Ali Touré lu musaa ñoral day ànd ak moom ko maam Thierno wala mu boole ko ay ndaw mu jiitu ñu yot ko maam Thierno ba diirub li sëriñ bi nekk ci tukki bi moom noonu la ànde woon ak moom yàlla dogalit bi nga xamee ni sëriñ bi ñëw na ci tukki bi xam nga sëriñ bi bi mu ñëwee am yoon woo xam ni dañ koo indi njaareem yoon wu gàtt weer yu néew la seex yu bari fa lañ ko nuyjee fa lañ ko siyaar jee moom ànd naag Seex Touré barikàlla magam di sëriñam di kilifaam ñu ànd dem daal di siyaar ji sëriñ Touba ca yooyu jamono mag ñi ku ñëw rek da ngay dem fekk barab nga def fa ab xayma yaag sa mbooloo dal fa di dem nag ci sëriñ bi di ko siyaare kër yuñ dëkk amu xoon ci àll bi rek lañ def ay xayma waaw ndax tubaab yi fañ tegan sëriñ bi ñoo ko wutalan fu ne waaye booba doona gut kër gu mu dëkk bis ba nga xamee ni Cheikh Ali ànd nañu ak moom dem siyaari sëñ Touba ba siyaare ko jox ko àddiyee ba noppi delsi ca xayma ba bañ julee timis dafa daal di woo signal yi mati daal di ko ne kaay dellu ci Serigne Touba defi sa siyaaru bopp daal woo bëkk néegam bu ñuy wax sëñ Mor Kan kooku tey boo demee gusa Touré Gusaas gi di fa fekk doom ju wax sëñ Fallou Kan daal di yëkkati ñetti téeméeri dërëmi ngurdu jox ko ni ko boo demee nanga ko jox sëñ bi sa siyaaru bopp may naa la ko yàlla def mu dem ànd ak sëñ Mor Kan dellu ci sëriñ bi bañ delloo ba àgg ci sëriñ bi wax na ni yoon woowu ba mu demee ba mu joxe sëriñ bi loxo sëriñ bi da koo bàyyeek loxoom mu siyaare ca loxo ba ba raay ci kanamam sëriñ bi doo a téye sëñ Mor Kan daldi ñëw ni diis bëgg a wax ak sëriñ bi li ko seexal Aliou Touré wax ci moom sëñ Touba daal koy fittasu daldi ko ni Aliou boo demee noonee nga mal wéy ci sun boroom lu mu def xam na lam ci jublu waaw noonee nga mel wéy ci ni rek loolu la ko wax dal leen di ñaanal ñu dem bi mu ñëwee Cheikh Aliou Touré Cheikh Aliou Touré laaj ko aw yoonam mu nettali Cheikh Aliou Touré daal di daal cay bég lool ni ko noonu la yàlla def yàggul foofu tuwaay dañoo jële sëriñ bi njaarim dal di koy yóbbu jolof bañ ko yóbboo jolofit ñoom ñu daal di dellu xabaan yàlla def biñ delloo xàbbaan ñu wéy seenub liggéey wéy ci liggéey ba eh, benn bis Cheikh Aliou ni ko dama bëgg nga ñëw seeti fañ yóbbu sëriñ bi ndax dégg naa ma nga ñu yóbbu ci àllub jolof ba boo demee ba xam fa mu ne boo ñëwee nu dem fa daal di yëkkati addiye ju bari jox ko mu daal di jóge xàbbaan daal di wuti jolof booba sëriñ bi jotagut a dem njaareem euh, gànnaar ma nga ma nga jolof booba signal yi nee na bi ma jógee nee di dox top àll bi di dox di dox di fanaan di dox ba àgg ci dëkk bi sëriñ bi ne nee na am na guy goo xay guy googa ñu bari dañ fay fanaan julli fa fajar ag, ne ba ma fa àggee fekk naa kuy sibet dugub waaye sama dënn bi tàng na lool boobu ma ne ko boo ma mayen luma ma lu ma serale sama dënn bi de ndax daw yi may daw ak ni may waaxoo àgg na ci sama dënn baa ngi tàkk nee na ñaari ñaari koogi sebet la tànk may ma ma naan ko nee na ba ma ko naanee damaa mel ni koo xam ni musta jaar ci coono nee na fanaanuma damaa jóg topp guddi gi di dox ba nee na bi fajar bi ñu tolloo ci salaatu bi ma dugg ci pénc bi ci laa gis kuy ubbi jàkk ji ndekete sëriñ bi nee na mbooloo mu bari nag ñu ci pénc ma waaye kenn xamu ci sa morom neena sëriñ bi bis boobu moo ubbi jàkka ji noddal boppam nee ñu def ko jàkka joo xëy daa mel ni solen a ko wër soleen buñ boolee xat neena sëriñ bi noddal boppam ñépp daal di daw taxaw ci wetu jàkka ji nee bi nodd gi daanoo ku ne julli ñaar rakkaam nee na sëriñ bi daal di jiite julli gi moo ko jiital boppam nee na ñu julli nee na jàkka ji am na ñu ci xaj waaye li ci ëpp xaju ñi ngi ci biti taxaw moom nee na ginnaaw yàlla dogaloon na moom waxtu wi sëriñ bi ubbi jàkka ji lay agsi moom moom duggoon na ci jàkka ji nee na biñ julee ba noppi dañoo daal di wax ne na ñëpp génn jàkk ji may sëñ bi dafay def lawraata nee ñu daal di génn wàcc ko dem toog ci biti ñëpp sukk ne bi sëriñ bi noppee daa jóg waaxu tànk yu dëgër jëm ci kër gi nee kum romb fi tesu la ne am fu mu la joxoñ nee nga sukk foofa ne mbo ñëpp ni tiram nee na sëriñ bi daal di dugg ci biir nee na moom bis boobu fa mu bóof ñaq wi di sottiku ndax tàngaay wi nee booba jolof dafa tàng te nee na fitna la ñëwaale nee na waxtu woowu ay yéram a ngi sotti aw ñaq waaye ne fam mu bóof fa bóof nit ñi kenn ku ne fanga nga bóof fa nga ne kenn yëngutuut kenn yëngutuut nee na ba noddu tisbaar jot la sëriñ bi doog a yëngutuwaat nee na laat boppam waaxu wutiwaat jàkk ji ñépp jóg topp ko nee na sëriñ bi noddalaat boppam ci tisbaar ji nee na jiitewaat tisbaar ji nee bi mu noppee tisbaar ji nag la ñëw ci mbaar mu yaatu mbaar mu mel ni mbaarum solen mbaarum gitax nee na ca mbaar ma la toog nee na sëriñ bi amul woon jotu dajale nit ñi di waxtaan ak ñoom nee na kenn ku ñëw boo ko joxee loxo dalay laaj foo bàyyi ko lu la tax a jóg nga wax ko ko mu wax la lim lay wax ñaana la nga jóg dem nee boo jógee yow da daal rek dem nee na bi mu ñëwee ba jox ko loxo bi mu ko laajee mu ne ko maa nga jóge Cheikh Cheikh Ali Touré mu ne ko waxtu woo fa bàyyi ko mu wax ko ko mu ne ko waxtu wi nga agsi fii wi ma la gis fii nga agsi nee na mu ne ko waaw nee na sëñ da ko ni góor nga de ndax nee na booba ma nga foora na agsi moom ca tàkkusaan waaye li ñuy wax anticiper la def te du benn yoon moo tax mu agsi ci fajar gi sëñ bi xam na ni ci baatin ngóoraama tax mu agsi fii na ni waaye tey jii ci tàkkusaan la waroon a agsi moo tax mu ne ko góor nga ne mu génn àddiyee jox ko wax ko li ko Cheikh Aliou Touré wax nee na mu wax ma ñaari kàddu ni ma boo demee neel àll yi nangam ak nangam yow sa boppit it nangam ak nangam kàddu yooyu nag topp nañ ko ci topp mu ni lam ma waxloo Cheikh Aliou duma ko wax lam ma wax du ko wax ndax lam ma waxloo Cheikh Aliou Touré Cheikh Aliou sëñ Touba la lam ma wax maak sëñ Touba <laughs> waaw loolu moom mooy bis boobu yàlla dogalit nañu sëriñ bi ca foofee yóbbu ko gànnaar ndax gànnaar ji sax du tubaab yee ko yóbbu sëñ bi moo ko bëgg ndax euh, mbokkam ma nga xam ni moo jóge woon gànnaar ñëw ndar bëgg na gis sëriñ bi te tubaab yi may ñu mu bind ab leetar yónnee ko sëriñ bi sëriñ bi sax ba mu jotee leetar ba jógoon na ngir bëgg koo seet si ndar waaye yàlla dogal ngant am ci ci diggam ak boroomam sëriñ bi wàññeeku eh, naar boobee nag di seen Cheikh Sidiya baax ba daal di ñaanaat tubaab yi tubaab yi ni ko sax yow ginnaaw moom àgg na la fii tee ngaa tee ngaa ñëw ñu jox la ko nga yóbbu ko fa nga dëkk ndax moom bu nekkul fii rek nu am jàmm mu ni leen lool de bu dee force du ma ko nangu waaye bu ngeen ko ko waxee ba mu nangu lu may sawar la ñu daal tàmbalee dox loolu bi ñu ko doxee njaal benn nga maanaam meleen na nu dëgër waaye sëriñ bi mujj fekk leen ca daal di nangoo dem gànnaar loolu mooy tax sëriñ bi sax dem gànnaar ci daa gànnaar jooju juróomi at yam fa def yàlla dogal na at mu njëkk ma rek laata moo jeex Cheikh Aliou Touré Barikalla ànd naa ak moom ñu dem gànnaar fekk fi sëriñ bi yàlla def biñ demee ñu gis sëriñ bi foofa gànnaar jox ko seeni addiye siyaar ko am nañ fa ab diir daal di ñibbisi ca déwén sa ñu àndaat dellu muy ñaar ca déwén sa addiye ja ja jañ war a yóbbu moom la ko Cheikh Aliou jox moom moo dem gànnaar yóbbu ko muy ñetti addiye ñeenteel ba ñoo àndaat muy ñeenti addiye yi ñu yóbbu ñoo àndaat juróomeel ba moom la yónniwaat muy juróomi addiye yi ñu yóbbu moom la yónniwaat gànnaar yàlla def na bi nga xamee ni in jële nañ ko gànnaar ba indi ko ceeyeen jolofit noonu lañu jappo won ak serigne bi ndax Cheikh ali Touré barikalla fu serigne bi Moussa ne lu am dana ko yót euh, bi nga xamé tambali ñoo dem ci en jolof te tuwa bi di téré sax gis ngeen ñafa jëk addiye ju am solo ba fas wowe tuwa bi bind sax ci addiye ju jëk jëla mom Cheikh ali Touré ko yóbbu légui ñono lañu wé ak mom ba juroom ñaari ati ci en fi mat sëriñ bi tubaab yi jële ko fa indi ko njaareem muy année douze bi nga xamee ni nag duus ñëw na ñu indi ko njaareem bi ko kilifa yi nuy see nag ci la leen dëkkloo nag njaareem feetam kenn ku ci nekkit mu wax la ne la na wut fu jege fii ma ne gor ko def koy tool di fa liggéey te jige ma loola moo waral gorub Touré Gusaas moo waral gorub Njenne Lagan moo waral gorub Paxa moo waral gorub Touba Fall dëkk kilifa yi ngeen gis yëpp ñu wër tuubaa ak Njaareem looloo ko waral kenn ku ne nag yor say tool di bay di indi ba ba mat fukki at ak juróom fukki at yooyu ak juróom yàlla dogal na lépp loo xam ne nii sëñ Touba mi ngi ko doon defloo Cheikh Aliou Touré. yàlla dogal na it booba jamono sëñ Aliou Mati mooy jëwriñam ndax ba ñuy gor Touré Gosaas mooy jëwriñ ji lépp mooy jëwriñ ji moom nit da daan topp ci moom waaye moom ba ko sëñ Aliou Mati ba ko Cheikh Aliou Touré bari kàlla dafay jëwriñ ba niñ tàqali ko amatul jëwriñ bu dox diggam ak moom gis nga dugub ji ñu daan bojjee Touré Gosaas daan ko yóbbul sëriñ Touba nga xam ni Cheikh Ali Touré barikalla daana bojji ci sàqi fukk yi lu mat fukk wala fukk ak nangam at mu ne daanañ ko yi nga xam ni sëñ bi nee na daanañ def lu ñeenti téeméeri saako mbaa juróomi téeméeri saako yoo xay saako yi dañ koy yokk li wax nàmmaan ba muy dugub nee na gosaas lañ ko daan indi teg ko ci saxaar gi saxaar gi bu demee ba njaareem ba tolloog fii Cheikh Ali Touré dëkk nee na ki yore ju juyeer bi day mel ni buñ taxawee juyeer bi bu tàkkee euh, xonq day wekki wago ndax dugub ji muy sëf booba nee na dugub ji signal yi na ci am sëñ mu jaw paxat na ci am sëñ isa nee dugub yi daan bari nee dañuy lonki wago yi ñi kenn ku ne ñuy wàcc say saaku di daanu ci xur wi say donga nag di ko yenu di yóbbu ci biir kër gu mag signal yi nee na ma saaku yooyu nun ñi amoon doole dañ daan taxawal mu taxaw nga won ko ginnaaw mel ni luy luy jonkan daal di koy boot sa ginnaaw siggéeg moom ne daal di cal rek wuti kër sëñ Tuubaa ne lool daanañ ci fat ñeent téeméeri saako juróom fukk mbaa juróomi téeméeri saako euh, liggéey bi nga xam ni moo gën a siiw ci lu sëñ Tuubaa doon liggéeyloo Cheikh Aliou Touré mooy barrière bi liggéey yu bari da ko jiitu Cheikh Aliou Touré sëñ Touba liggéeyloo na ko ci biir këru njaareem gi ay liggéey yu bari lu mel ni takki néeg defari mbaar daggi kees lu ne def loo nag ko ay yooni yooni yooni yoon liggéey barrière bi moom da cee gën a siiw rek waaye mën nañ sax daanaka moo ci mujj sëñ Aliou mos na ma wax ni ma am na benn bis sëñ Touba dafa woolu samaam bisub dibéer la ko woolu mu ñëw mu ni ko dama bëgg bu sibiree ci àllarba ji nga defaral ma fii ab néeg néeg boo xam ni ni mu bëgg mu mel ni mu wax ko Cheikh Aliou Touré ni ko nag lépp ci àllarba ji lañ koy def na sotti ci àllarba ji daldi ko ni suba nag la altine bisub talaata bi it buñ ci dagg dara buñ fi indi dara itam loo xay ci talaata ji la bokk nga xay nee na dibéer ji samaam daal daal di riñaan jànq wut si Touré ne ba mu ñëwee mu mu songu ma ni ma néeg bi sëriñ bi soxla àllarba suba ci altine ji na lépp noppi suba ci altine ji na lépp fanaani njaarim ca kër këram ga sa njaarim kër see xaalis Touré nee na booba nag moom yàlla dimbali na ko ba amoon nag gayet goo xam ni nee na moom Seex Ali la ci doon xalaatal am néeg waaye ne ba mu ko wanee gayet ga Cheikh Aliou Touré ko ni gii gayet kenn du ma ko daajal sëñ Tuubaa lañ koy defaral te nee na gayet googu moo ko dagg ci loxoom nee na ñu daal wut lépp nag laat yeeg boob beeg xat beeg yëpp nee na booba laat am na fa boob am na fa nee na yi ci des yëpp ñu dagg ko nee na daal topp nee na daal di topp guddi gi biñ toppee guddi gi nee na ñu daal di dem yóbbu ko njaareem mu fanaan fa ci guddi altine gi nee na laataa fajar nee lépp àgg na wax na ma ni ma ku ñu wax am na taalibe mu ñu wax sëñ Issa Diouf ca Ngomeen nee na ma gayet googee nee na ma yenu na ca yaari yaari yaari say yóbbu ko njaareem ci ci guddi gi nee na loola moom lu ko yéem la ba léegi ndax nee na booba xam na ni ñii liggéey ni ñuy liggéeyee am na lu leen ciy dimbali waaye moom neena na Isaa moom nee na day boole bant yi bari takk ko te nee na yoon wu nit ñi sëpp dina indi ñaari yoon ndax nee day yanu wenn yoon day yanu topp yoon wi ba xaajale wacc ko fa daw dellu yanu weneen nee na bu ñëwee bu indee yoonu mujj ba teg ko day daal di dëpp dem jëli yoonu ñaareel ba indi teg ne nga xay ne bu ñu indee ñaari bu dongay indee ñaari say rek moom benn say rek moom indi na ñaar mooy sëñ Issa Diouf sax la waxoon bi mu bëgg a génn àdduna moom la waxoon ni moom muy génn àdduna na mujj ci jëmmam muy sëñ Issa moom waaw euh, loola dongo yu bari yu ko topp ak ñoom ñoo bokkoon ne ca daara joojee alaaji Ibra Badiane ak alaaji Ndaraw Ndoy Pire ñoom ñëpp booba yooyu jamono ñanga nga sa daara jooje eh, sëñ bi wax na ni néeg boobu bi ñu ko defaree ba ba mu àgg bi sëñ Touba génnee di julli tàkkusaan ci pinc la fekk néeg bi toll ci ñu war koo teg nee daa julli ji mu ñëw dëpp nee taxaw tiim néeg bi nee nee na biñ koy yëkkati di ko di ko war a yóbbu fi ñu koy teg mm-hmm. nee ne sëriñ bi dafa wax bisimilah ronu néeg bi ànd ak ñoom di dox nee ba fiñ koy teg ñu teg ko nee na biñ suulee ba nag sëriñ bi na am na nu mu daan jekkee mu ni jekki na woowu mu jekkee ko ca digg ba daal di laaj tabley kafe nee na ñu indi tabley kafe ji nee am koy xel di joxe nee ba yàgg am dongo buñ jox mu ni du naan kafe nee na sëñ Tuubaa ni ko loo ci jublu mu ne ko bu ma ko naanee damay neer damay waccu nee na sëñ Tuubaa daal di laaj tableau café nee na kooko ku doon xel li ñëw teg ko ci kanamam dama fàtte tur am diw silla la daan wax nee na biñ ko bi mu ko tegee ci kanam nee na ku tedd ki jël loxoom bu tedd ba xel ab kaas ba mu fees nee mu ne faal faal jox nee mu fab jox ko mu ni ko jëfandikoo nee na kooku daal koy naan fi saase nee na mu laajaat kaas ba defaat ko ni ko jëfandikoo nee mu naan ko ba mu ñaari yoon mu ne ko fabal mu ne ko jëlal àggale mu daal di jël tableau bi teg fere di àggale nee na sëriñ bi daal ninu sama kafe gi yeneen ko jëfandikoo ndax dafa lënkaloog sama xasida yi <laughs> nee loolu sëñ Tuubaa ko sama café gii dee leen ko jëfandikoo ndax defal lënkaloog sama xasida yi moo tax daan wax naan képp kuy naan kafe jublu ci naan kafe ak sëñ Tuubaa tuyaaba nga ci yam <laughs> waaw tuyaaba nga ci yam loola it noona la wéyee ak Cheikh Ali Touré musu koo yemaleek dara nag sëñ Touba demoon na ba buy liggéeyloo Cheikh Ali moom xam na ni signal yu mag moo koy taxaw ba mujj na bu génnee ci liggéey bi buy wax ak Cheikh Ali ne nee nee nee na nee li mu koy jëkkalaaj mooy signal yi mati la koy jëkkalaaj ndax xam na ni mooy taxawu liggéey bi dañ ko ñu daal koy wooy ci liggéey bu mu ñëw nuyoo nee na liggéey bu ñu ko daan def sëriñ bi ak Cheikh Aliou Touré ñoom ñaare danañ am fuñ daan nekk ñuy li liggéey ñoom lañuy ñuy liggéey waaw ñuy liggéey seenub liggéey waaw loolu nekk nekk ca ba gis nga këru njaarim gii barrière bii xam nga sëñ Touba barrière bi la doon defarloo signal yi Touré maanaam yokku seng bi ba ba mu ba mu gudd kawe loolu signal ko def ci ngóoraam moo ko ci xërteem waaye barrière bi la ko sëñ Touba doon def loo barrière bi ni mu demee mooy xam nga sëñ Touba da daan def bu yoor yooree da daan génn di dox ak tànkam di wër kër gi maanaam njabootu sëñ tubaa gi loolu danañ koy def ñoom gis naa ñu doonoon nañ ci moom di dox sëñ Abdou Khadim mii daana dox di wër ci biir këram dox boobu xëy na ak jaamu yàlla la ci ñoom sëñ Tuubaa nag dafa wax ni bu Musaa di dox nii ci ci ci biti kër gi nit ñu bari dañ koy séen bëgg koo nuyu te nee du am jotu taxaw du nuyo ñoom te nee gis gi ko nit ñi gis xamna ni ñi ngi ci jarignu té bëggu leen ko xañ mo taxan mu wo Cheikh Aliou Touré ni ko seng bi digam ak ñent mètre ci ginnaaw manam ñu nat ñent mètre nii dama bëgg nga defal mako barrière bu wër kër gi ba nga xamni buma jaar mo doxé ci biir kër gi digënté seng bi ak barrière bi nit ñu duñ mëna aksi ci man waye gis giñ ma daan gis di jariñu ci man du fank waye duñu ma dogaleti ni nak bima bima bima ko bëgge sun borom momo wax ni na la ko def lo léegi nak ci biir barrière bi ak Cheikh Ali Touré fagu teef yim amone ak jumtu yi mu ci la dem ba wax ni seng bi niñ ko sampé ni mu taxaw kon dañuy xaj benen seng yokke ko ko mu guddou looloo waral euh, yokkub gudd bi fi ne ñu bari dañoo defe ni sëñ bi loolu la ko doon defloo sëñ bi barrière bi la ko doon loo yokk bi moo ko moom moo xalaatal boppam moo ko yokkal boppam ci jumtuwaay yi mu yoroon moo bari woon ndax Cheikh Aliou Thion dafa bari woon wërsëg barrière bi dañ koo guddalan ba mu tollook seng ba nga xay daa gudd sëñ bi bu jaaree ci diggante bi di dem ñëpp mën nañ koy séen ndax sëñ bi ku ko teg bët jariñu ndax señal yi mati daf maa mos a wax ni ma képp ku gis sëñ Tuubaa sëbët ki ko gisul mënatula def loo ko gënewul waaw <laughs> ah, ki ko gisul def loo ko gënewul moo tax sëñ bi bëgg koon a xañ nit ñi loolee it kilifa yi bari ñëwoon nañ ci sëñ bi laaj ko xam nga maam see Anta sax wax nañ ni sëñ bi daana wax naa maam si Anta moom da daan daan tooñ sa maam ndax daa ñëw ni sëñ Ali Ali Touré béykat bi nga xay amul dara ndax nee na maam si Anta booba sëñ Touba jox na ko yaar yëf jox na ko ngërëm jox na ko wërsëg mais boobu moo ëpp la ci nit ñi te kenn ëpp ko ngërëmul sëñ Touba mu ne ko Ali baykat bi rek ngay def loolu yi mu ne ko suñ borom moo ko <laughs> ko moom la suñ borom wax maam Cheikh rek moom it ba koy yogee daa dem ci Cheikh Ali Touré ni ko xam nga léeg nit ñi sax dañuy wax ci xese yi loo xay day ëpp kenn ku xay di nga dem ci sëñ Tuubaa ni ko lu tax ngay liggéeyloo diw liggéeyloo amul ndax ñoom xam nañ ni sëñ Tuubaa ndigal suñ borom lay doxe loolu nit ñee ko wax ni rek moom ci Cheikh Aliou Touré la dem ni ko ah dégg naa ah sunu mag dégg naa la la sëñ Tuubaa def loo te koo bàyyi ma def ko mu ne ko ah déedéet man mën naa ko def man am naa lu ko def am naa ñu ko def mu ne ko ah kon dimbalee moom boo koy def nu bokk rek mu ne ko ah yow daal xam nga ni maa yow benn lan waaye nag loolee moom duma la ko def loo mu ne ko ah dimbali ma rek sama ñaq samay samay dong ànd ci looloo waral barrière bi biñ koy defar waa kër Cheikh Ali Touré yi ni ñu toll waa kër Cheikh Ibrahima Fall yi toll nañ liñ ko doon jëndee it lam ca man ak la Cheikh Ibra def man lépp def nañ ko ndax loo booba lu jafe la lu yombul la woon ndax kër gi daa rëy Cheikh Ali Touré ma sëñ Ali ma ci bopp moom wax ci gémmañu ni ma bi ñu dajee ba war a tàmbali liggéey bi sa maam teew Cheikh Issa jenn teew mm-hmm. nee na bis booba Cheikh Issa teew na mu ni ma sëñ Cheikh Ibra Fall teew ne ñuy xool ni ñuy war a tàmbalee liggéey bi mu ni ma Cheikh Ibra nit ku amoon xalaat la ne daa daal di natt ñeenti meetar ba ba mat ñeenti meetar ne mu daal di gas lu samp lu fa aw dénk ne ñu samp aw dénk ne mu dem ba sori ne man la nattu la ne ma nattaat ñeenti mètre mu gas samp foo dénk ne ba mat fukki dénk nee bi mu ñëwee biñ ta buum gu njëkk dénk wu njëkk biñ ci takkee buum ñoddi ko daa tafu rek mm-hmm. topp yenn dénk yi mm-hmm. Mm-hmm. nee na nee na bi mu demee bañ takk ko ci fukkeel ba nee mu ni ma nii lañ koy nattee ba mu wër nee ñu daal di jël diis gi topp wër kër gi samp dénk yi ba takk buum gi ba noppi nee na biñ ko defee nee na ma Cheikh Ibra Fall ni ma sukkal nee ma sukk mu ma téyel sama waq wi nee ma téye ci waq wi mu ni ma da téye bu dëgër nee ma téye bu dëgër nee mu téen ne ne bu bu ne bu ne si ab jégo nee na sama loxo bii day tàlli nee na fa teg tànkam mu ni ma wàqil nee ma wàqi nii nga dégg ñu naan jëmmi Cheikh Ibra lañ ko natte Cheikh Ibra yooyu jamono nan lay mën a tëdd ñuy natt ah, jëmmam loolu la nit ñi wax naan jëmmam la ko natte waaw xam nga këru njaaram gi ñu toll Cheikh Ibrahima di tëdd ñuy natt tànk ba mu àgg loolu moom daa yónul maanaam sax moom <laughs> léegi nag ni da doon ñoddi waq wi bu ne direet sama baay weq wàq muy am pax nee na bi nu wëree nee na ma ñëw noonu ko Cheikh Ibrahima wëree ba mu si nee noonu laa raame wër kër si kër gi ba ëgsi nee bi nii si pax yi àgg na jana yi samp nañ ne pax bu ni sama loxo rek nit nit song na ko ngas ni mom de lepp soti na ñu ne ko ah, soti na de mhm. nee na loolu barrière bi ne ñu dal di fab nak barrière bi nak mhm. di taf di di piqué ba mu wër mhm. légui nak nee na ñu dal di dem jëndi ay seng ak bant yokku seng bi mu jëm kaw tolloog barrière ne muy lu gudd nag lu ci ne mat ñetti mètre wala ñeent waaw ndax xam nga aw seng ñaari mètre la boo ci tegee xaaj rek daanaka juróom juróomi mètre la ndax boo boo leen di samp juróomi mètre la ne noonu la guddee woon nga xam ni nee na ma bi se bi Cheikh Ibra bi sëñ Touba ñëwee jaar ci biir barrière bi ak diggam ak seng bi di ko di di xool li mu doon def deflu ànd ak Cheikh Aliou Touré ak Cheikh Ibra fofé la Cheikh ali Touré waxé won ni ni ñepp ag suuf képp ko xay nak xam nga ci señ bi lén lul dalam yi dina daje ma ak yow ne moo waral ñepp dañu sëgg rek <laughs> ndax nangul won ku ko xol bobu nee na mu and ak mom ak Cheikh Ibra nee na ak ay benn benn kilifa ñu jaar nak wër nee na wër bobé nak bañ wëré ba nopi nak mo waral sababam ñu ne lii kat ku ko defati sa aajo faju nee na Cheikh Aliou boppam sax moo leen ni wër bii sëñ Touba wër nii tey mm-hmm. Mm-hmm. képp koo xay wër nga ko sa aajo dina faj mm-hmm. nee nit ñëpp jóg di rippi rippi wër <laughs> loolu loola waral wër bi waaw ba léegi sax gis nga gàmmu ak euh, lu xew njaaram rek ñaare dinañ koy dinañ koy wër waaw dinañ koy wër noonu nag la àndee woon ak Cheikh Aliou ba yàlla dogal Cheikh Ali Touré sottal ab liggéey bi mu liggéey xam nga Sëñ Touba 1927 vingt la la sottal ab liggéeyam te déwén c'est de 1928 Cheikh Ali Touré ndax Sëñ Touba benn at la jiite woon Cheikh Ali Touré adduna ci ganek adduna saayir ci 53 la ci 54 kii itam 27 la dem kii 28 benn at la ko jiituwaat loole sëñ bi def na ci ay xar baax ndax bi muy bëgg a euh, génn àdduna jël na ñetti àndaari dugub yónnee ko Cheikh Aliou Touré ni ndaw li boo demee neel si euh, Aliou euh, dugub jooju na ko natt séddoo ko moog Ibra Fall bi mu ñëwee Cheikh Aliou Touré daal koy nattlu muy ñetti àndaar mu téye benn ba daal di fab ñaare jox ndaw la ni ko yótal ma samaam Cheikh mu daal koy yot sunu maam Cheikh Ibra Fall bi mu ko ko yotee sëñ bi mos naa wax ne ma samaam Cheikh Ibra da daal tiim dugub ji ba yàgg mu daal di ni hee sun mag jee ka néeg sun mag jee néeg daal ni réew mu moor Mor ba nekkul ñetti at ëpp na fa réew mu baam ba nekkul ñetti at ëpp na fa nee na loolu la wax waaye kenn xamul li muy wax léegi daal di ndaw la ba mu dëppee jaar Cheikh li Touré mu ne ko ndax gis nga sama bi Cheikh Ibra mu ne ko waaw mm-hmm. daal koy wax la Cheikh Ibra wax mu daal di reeri ci moom mm-hmm. mu ne ma samaam Cheikh Ibra ci suba si ba muy dem kër gu mag jaar na fa sëñ Touba fa samaam Aliou mm-hmm. ni ko ah néeg nga de mënoon ngaa téye lépp mu ne ko duma ko def ñaar yooye nga moom moom moom benn ba léegi eh, benn boo mu téye mooy benn at bi ko sëñ jiitoo benn boobu ak ñaari at ñaari Cheikh Cheikh Ibra téyoon mooy ñetti at yi ñu jiitoo Cheikh Ibra mm-hmm. loolu àndaar dugub jooy loolu la signifie <laughs> waaw loolu doon <laughs> yàlla def bi bi bi bi sëñ Modou Moussa bi sëñ Touba bi Cheikh Aliou Touré mm-hmm. jamono yooyu sëñ Modou Moustapha mi ngi doog a am benn at ci xalifa mm-hmm. yàlla dogal Cheikh Ibra dëjub Cheikh Aliou Touré ba mu ñëw jaale si ñëw te ëtt ba daal di woolu sama ñu tegal ko bang mu toog mu daal di ñëw yëkkati jaxal ba mu doon joxe jox ko sama baay ñu ko ah sun rak sun mag la jaale sama daal ko sëñ Cheikh Touré doomu mu ne ko ah sun rak sun def na loo xay de ah batu ko woon de moom de mbirum baatinam yëpp da koo def ci kaas rek yëngal ko xëyal ko naan yóbbaale lu mu ci jublu ëllëg ju yaatu rek ëllëg ju yaatu rek <laughs> waaw loolu la ko wax ndeysaan keroog yàlla def ñu teg ci lu toll ci juróomi fan juróom benn Cheikh Ibra woolu ko ba mu ko wujjee mu ni ko daa am lu ma la bëgg a leeral loo xëy ñi ko xam bariwul daal di ko ni kuréel gi ñoo xam malaawul axlaa muy kuréel gu malaayka gu mag Muudu Moustapha lañ samp te fuñ toll ñu ngi ko wër Modou Moussa lañ samp ta fuñ tollu mi ngi ko wër mom loolu rek wax mm-hmm, mm-hmm. dal di ko ne man nga dellu ci kër ga señ bi ne ba ma fa joge dama ñew sama kër di xelli café ni rek mm-hmm. café ngon ne ne ndaw fekk ma fa ni ma kay wuyu señ Modou Moussa ne ma dal di jog dem wuy señ Modou Moussa yalla def mu andak ak mur Modou Moussa nag mom ak mom ak bi nga xamé ni euh yàlla def na mu war a tàmbali liggéey jumaa yi Tuubaa ji dafa woo seen san baay ni ko liggéeyu jumaa yi Tuubaa daa bokk ci li ma sëñ Tuubaa battale lan te gën ko see ñor at mii nu jëm nag dama bëgg buñ ci àggee bu nawet bi àggee ma ma ma ma ko mu ne ko liggéey sëriñ Tuubaa bi damaa bëgg xam ñu deme ni yéen ci mbay lu ñuy man ndax ma xam ne moo koy tàmbalee euh, wax na ma sax ni booba limal na ko juróomi nit ni ko ku deme ni yaag Madiba Silla ak Mbay Falloo ak Mourou Moussa Fall sëñ Mourou Moussa Mbay Keere yéen yéen yéen yéen seen seeni liggéey ñemeloo na ma lu ne nee na bis boobu wax na ko loolu nee na ma ne ko man de sama gor bee ci seew daaw laa ko gor ndax 1930 la goroon seew waaye da ko faa waccoon mu ne ko nag defe naay buñ fa nawetee dinañ fa am luñ fa mën a ñoral mu ne ko ndax di fa mën a ñoral lu ma téeméeri bërgi ërin mu ne ko ah, waaw xanaa lu teg kay mu ne ko dugub nag mu ne ko dugub bi dina ko jiga de mu ne ko kon nañ na na na na na na nga ñëw ma jox la ñaan nga yóbbu ko fa te yenti daara nawet fa at mooma sëñ Mourou Moussa moo ko jox ak ñaan ni ko demal ba ca fa nga bëgg a def ab dëkk nga suul ko fa te boole ca nangam ak nangam te nawetal fa ñeenti daara ñeenti daara yooyu at mooma ku ñuy wax Balla gay Baye jaañ Coon Jenn Ndëri Sàmb di jaay Coon mee ci Kolda ak Balla gay Baye Mbay Gaye ak Baye Diagne ndari sam ñoo jëwriñ ñu fa naat boobu ñu bay fa bari bërigoy gert ak juroom fuk ak bari bërigoy dugub loola moy tambali señal yu métti ci liggéey bi may Tuuba loola it musu ko dakkal ci diggam ak señ Modou Moussa ba ni señ Modou Moussa fatoo sëñ Modou Moussa it dëkk bu Moussa am sancloo na ko sëñ Aliou Daaru Nayim gi sancloo na ko ñaari yoon coon mm-hmm. sëñ Modou Moussa sëñ Aliou mati la ko gor la moo ko gor ndax daa jë gor tayif mm-hmm. mu ne ko yooyu yamal coon mm-hmm. ak sa mbooloo boo sëñ Aliou mati daa bari mbooloo lool te di ay liggéeykat mu yem coon moo gor coon moo tax daggale na ko sax suuf may ko sëñ Ablaat mi këram googu ci bokki barke señal lii la ko señ sëñ Mourou saa jëkk a ñetti weer la fa dongo yi am bañ ko sancee sëñ Mourou saa ñëw wër ko da ko ni daa am ku bokk ci njabootu sëñ Touba gi koo xam ni sëñ Touba dafa am lu mu denc ci moom te dénk ma ko moo tax mu bëgg mu jige ma ndeke booba sëñ Abdoulaat ba mu fa indee sëñ Abdoulaat mu daal di yónneewaat sama baay ni ko na dem siyaari ko sëñ Abdoulaat la tudd sama baay dem fa siari ko yóbbu fa ab siaram ñetti nit la fek ci kër ga mo ñaari nit yalla dogal mu nuyoog mom jox ko siyaaram ba nopi ba mu deme kërëm ca fajar neena lañ ko xamal ni ko ki dina musa atta jamono muy sëñ Abdoulaye yalla def neena gisatu ko ba benn bis mu dem fa mu Mourou sa di ko siar fek fa sëñ nee na ba mu siyaaree nag bay génn Cheikh Ibrahima gunge génn topp ko mu jox ko siyaaram nee na mu bëgg koo wax nag lam lañ ko xamaloon ci moom waaye nee na Cheikh Ibrahima da ko ni matu ko di nga ko fekke moom nee da ko ni rek di ko fekke te jotu ko ko sax wax loolu nag Cheikh Ibrahima daanaka faral di wax fu mu ñëwee seew rek sëñ bi ne ko la ma la waxoon dina am de mu ne ko may la ma la waxoon dina am di nga ko fekke ba ànd nag ba ba ba ba ba fekke ne xalif ak sëñ Abdou Lahad ba am ci fukki at ba mu noppee gi sëñ Mourou Moussa it noonu la toppee sëñ Fallou sëñ Fallou Ndindi Touba Bogo fu ne gorloo na ko fa fu ne déqloo na ko fa fu ne ruujloo na ko noonu it la saxaloon ci eh, lu mu liggéey ba ñoral ko jot ko sëñ Fallou gis nga jumaay Touba biñ koy tabax am ku daan wax vitong bo toy na ñu naan ko ndëri sàmb di ko yuuxu ca kaw dongab señal yi loon gis nga këram gii ci sura mooy fii ngeen dëkk tey ñeenti néegi dongo ya ko fa sëñ Mourou Moussa defloo woon ndëri sàmb moomee ca la bokkoon sëñ Mourou Moussa bi ñuy denc señal yi bari kàlla daa nekkul ci dëkk bi da caa yeble maam Thierno daa yebal sëñ Massamba moo ko jullee waaye sëñ Fallou ñoom ñëpp fekk nañ ca ginnaaw suba sa nag daa ñëw siyaar barabu soxna loo way juróom ba noppi ni ki mu àndal sëñ Aliou bëkk dem biñ koy denc ndax fekk na la fi nee na mu ne ko waaw mu ne ko nañ dem a siyaare ko ñaanal ñu jóge nag guy texe jëm si fa ay rab di daw nii di dugg ci àll bi mu ne ki àndal xoolal ma ko mu dem xool ko ni ko dañ doon sulli rab yi dañ doon sulli ñu faatu ñu ca suul waaye dàq naa leen bi mu siyaaree barabu signal yi ba noppi nag ba ñaanal ko daa daal di dem bi mu demee mu daldi yónnee woolu sama baay bi mu yónnee woolu ko mu ne ko damaa demoon bëkk démb ci armeel ya doon siyaare barabu Cheikh Aliou Touré boobee waaye daa am rab yu fay sulli ñu néew ñu faatu ñu fa suul dama xool nag ci wetu gànnaar ga féeteeg daara sëñ Maxtaar Bintaloo joojee seen naa fa lu mel ni ay new def fa ñaari néeg te def fa ñeenti dongo dongo bu ne dongo yi bu ñu ay pot di tëgg di dàq rab yooyu loolu mooy sababu këram gii ci sura loolu 1928 la nett bi signal yi na la ci la ko fi def dongo yooyu nag ndari sàmm biñ tàmbalee liggéey jumaa ji dongo yooyu da caa boolewaat ñetti dongo muy juróom-ñaar mu boole leen ci liggéey jumaa ji ndari sàmm moomee ca la bokkoon mi daan wax naan bitong ba tooy na waa Tuubaa yi mag ñëpp xam nañ ko waaw la bokkoon sëñ Fallou nag moo sëñ sëñ Mourou Moussa boo dee xool diggam ak sëñ sëñ Aliou Mati danga naan liggéeyam bépp ci la yem waaye boo xoolee diggam ak sëñ Fallou danga naan ndekete moom ci sëñ Fall la liggéeyee seigne Fall demal naa mom ba bi juma ji àdde agge seigne Fall da koo woo ñu and dem ba fi ñu deñ seigne Saliou tey mu ne ko seigne ali santal yalla bu baax lii moo na ñoo seigne touba ci lim fi batale te liñ ci def yow salal buñ ko gënne won tay tabax ko yaq rek lay nuur way du nuur juma ko santal yalla bu baax ko sun borom de fi nga taxaw lo lo lo lo ko fi sakku rek lo ko fi ñaan mu defal la mune ko man dem Mbàkke lulul l'islam ju ji ju leunk lo ngeureumul seigne touba bëgguma ko seigne Fall ne ko amin way ma ngi yow seigne touba defal nan ko <laughs> ma ngi yow seigne touba defal nan ko fam mu la ko ma ngi seigne touba defal nan ko l'islam ju sell ju leunk lo ngeureumul seigne touba neena mom lo rek la bëgg lolu ci la nek nek ci ba yalla def seigne fallu fatou mu daal di ni daal di sëñ bi mu ko mujj a bind bi muy fondement Daaray Kaamil da ko ni ca lettre ba yoonu murit daa amul retraite waaye bu amoon retraite ma la retraite à la nga kenn la def loo dara waaye yoonu murit amu ko liggéey ba dem la am léegi nag damay defaral sëñ Touba foo xëy dama ko fay defal alxuraan ji ko gën mu gën a bëgg la koy fondement alal jafay dem ñi deme ni yéen laa bëgg ñu joxe ko yow na joxe juróom fukki junni ndax ñaar téeméeri million juróom fukk ko war a defar waaye damaa bëgg million yoo koy laytaay doon seenu ñaq yéen yow juróom fukki junni la la la moo ci sawal lettre ba mu agsee la ko sëñ bi daal di yóbbu mooy fondement daari rek la doxale woon nag diggoon njabootu sëñ Tuubaa yàlla dogal na it sëñ Abdou Khadir mii moom fi mu jaar moom neexu la wax sëñ Basiiru sëñ Touba sëñ Aliou demal na ba defal ko këram kërug boppam ci biir këram ca Seew Ture sëñ Basiiru dafa dal bayal na sëñ Basiiru àllarba fukki at ak ñett ci ci ci nekkul sëñ Mourou Moussa di ko beral àllarbay boppam sëñ Mourou sëñ Basiiru di ko dal ci këram ca Seew Ture sëñ Mourtala defaral na ko fa mu sen soye bu digub juñ ko musa bayel bayel eh, mboobeen sëñ Aliou Touré ko dan bojj sen Saliou fam jaar ak mom mune sul ko wax sëñ abdullah borom deur bi non musna tawat tawat jo xamni ni aw fas la yónnee sëñ abdullah borom deur bi ni ndaw la nee ko na ñaanal ndax dama tawat te bëgg mu ñaanal ma ndax sama liggey bu ma du dag ba mu demee sëñ Abdoulaye da ko ne nee ko demagut fenn képp ku am ngërëmul sëñ Touba bala ngaa génn àdduna dinaa ko xam lu mu néew néew ñetti weer ni ko nag waxuma ñépp ne ku am ngërëmul sëñ Touba laa wax te moom am na ko <laughs> c'est borom dër bi ponkal la de <laughs> lu néew néew ñetti weer la ko wax dinaa ko yëg waaw noonu la demoon ak njabootu sëñ Touba gi noonu la demoon nag bokk yi mm-hmm. wasalaamaaleykum <laughs>